dañoo liggéey colo, ak ministère de la santé parce que ñoom ñooy jiite xeex bi mooy dañ leen may ay réactifs ñoom ñu xayma xool ci biir Sénégal ñi nga xam ne am nañ ay équipement yu mën a ànd ak réactif yooyu ci la ñu ak ñeneen léegi seen wareef ñoom ministère santé c'était que ñu évaluer pour xool ndax test bi normal na site bu nekk ndax mën na def ak yooyu li ñu laajoon ñun def nañ ko bind nañ après jox leen ko neen test yi ngeen ñu laajoon def nañ ko léegi nag autorisation bi pour ñu commencer après di defal nit ñi ñoom ñoo koy joxe donc ministre bi li mu ñëwoon tey mooy pour mu ñëw xool suñ jumtukaay xam ne fi mu nekk nii comme par exemple euh, euh, suñ capacité man na ko et que seen aval la ñuy xaar pour léegi ñun ñu commencer li nga xam ne nag mën nañ ko def par jour ci équipement bi li mu maye mooy mën nañ def ba ñaari téeméeru test par jour ci li nga xam ne moom nañ ko euh, def ak yeneen labo yi mooy maanaam dañuy dem ci benn euh, fenn prélever après dañuy andi prélèvement yi suñ defee test yi aussi ñu jox ko résultat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko laaj parce que finalité bi yëpp mooy malade yoo xam ne dañ leen di suivre. donc bu ñu defee test mën a xam. su fekkee jot nañu tout dépend nag ci ñaata test moo ñëw euh, machine bi nu mu bindoo. donc il fait une série 24 ñaar ou bien djuroom ñaar ñaar donc par ay pack de 20, 24 là légui su féké da ngeen andi lo xamné série bi matna dañ koy lancer légui 6 heures de temps après 7 heures maximum am nañu résultat yi su féké nak aussi série bi matul comme da nga soxla 22 malades pour lancer ñu andil la 10 di nga xaar mu mat et donc durée bi ñuy compléter lolu mom moy ki bi et donc li ñuy wax ñi nga c'est que dañuy andil ki moy ñu fexé suñ koy andi mu mat suñuy ñëw ñu lancé ko ci bon 22 la ou 46 ou 70 c'est-à-dire da ngay jël par multiple de 24 et chaque fois da ngay am ñaar yo ay contrôle la li dess nga compléter ko par malade so amé 22 24 yi ak contrôle yi nga lancé so amé 70 nga man nga lancé so amé 46 man nga lancé voilà donc soo a même 94 mën donc par 24 là, 24 48 72 et 96. bon je pense que quand même mën nañu wóolu de ministère santé euh, peut-être que li ñuy wax mën na bëri mais nañu nangu sont liggéey nañu parce que suñ xoolee yeneen dëkk yi comparé leen yéen ngeen def investigation qui xam ne quand même que nous ñi fii liggéey nañ ku xam sénégalais. xam ni muy doxee bañ a toog comme par exemple ak yooyu war ngeen mën a xam ne ministère santé liggéey na liggéey après bu rafet amoon na avis maintenant euh, cas importé euh, service de sécurité yi ñoo ngi ci frontières yi ku dugg ñu jàpp la jéem a xool ndax dañ lay saytu ba xool balaa ñuy dugg récemment dégg ngeen ñoo xam ne Kédougou lañ nekk jógee peut-être ci yeneen dëkk yi ñu jël leen li nga xam ne pour man moo am solo mooy ñu yokk test yi rek. sànq dama ne su fekkee testé wuñ ko. su fekkee testé wuñ ko problème bi yëpp mooy ci maanaam euh, épidémie mbas yu mel nii lii jafe-jafe bi mooy ñi nga xam ne dañu am doomu jàngoro bi te kenn xamu leen loolu nag nenn rek nga mën a def pour xam leen mooy nga dépister leen xam leen kuñ ci xam ne am nga ko fat nañ la ci saa si te balaa ñu lay bàyyi di nga wóor ñu doog la bàyyi donc lii problème bi mooy nañu fexe ba ku ci koo xamee ne njortu nañ ne am nga ko mbaa kii la ñu fexe testé la soo ko amee baax na ñu testé la ñu ñu faj la balaa ngay dem après nga nga nga kii mais danger bi daal mooy ñi nga xame ne dañ ko am te ñoo ngi ci population bi te kenn xamu leen te lenn rek lañ mën a tax mu xam ko mooy ñu def ko gis ngeen ay dëkk yoo xam ne dañ amuñu dara c'est parce que dañu testé wul.